sayur may sabige kumba faal borom farahati cajambiyem daba mam say jayo indigal baal jabo mbokku déglu assalamu alaykum warahmatullahi rafetlu seen ànd ak rajo Jokko FM jant bi ñaar du ngeen di tollu onze heures na fukki simili ak ñett ñu leen wax daleen ak jàmm si seen mission jàkkaarloo politique dimanche bu jot ak seen natango Moussa Pouy nekk ci wakaay bi Assane Diouf féete ci xarala gi tey suñu gan doon nag ki nga xam ne moom moo di dégg ngeen ko sax ci bande annonce bi di docteur Souleymane Astou Diagne responsable politique nekk ci Benno Bokk Yaakaar fare ca Bargny ba pare nekk itam li nga xam ne moo di secrétaire permanent bu conseil économique social ak Touré Aminata Touré moom moo koy euh, jiite Souleymane Astou Diagne mooy suñu gan tey jii nii moom la ñu fas ab euh, jamono waxtu boo xam ne des na waxtaane ci li nga xam ne moo aajowoo euh, ci euh, taxawaay bi ca Bargny ci la nga xam ne moo di yëngu ci wàllu li nga xam ne moom moo di politique waaye yëngu également ci wàllu li nga xam ne moom moo di njàng mi wax ak moom ci ba tey yorinu maire yi ba a namatee fa moom itam ca gox ba ndax itam nekkoon fa ay jamono ab candidat ci palier nga xam ne moo fa aajowoo ca gox ba a waxtaan itam ci la nga xam ne moo di wàllu politique actualité bi nga xam ne également moom moo fi am su ko defee itam a daal di ko buurale nga xam ne daanaka moom mooy ay nammatéefam ci ay wote yi ñu ci ba tey ci wàllum gox Souleymane Astou Diagne ñu ngi laa nuyu maa ngi di la wax dalal ak jàmm yaa ngi ci émission jàkkaarloo politique tey Souleymane ñu doon euh, présenté nit ki nga doon euh, ci say yëngu ak jàng euh, luñ ko tënkee waaw déjà dama la bëggoon remercier ci invitation delloo di wax ne kontaan naa pour ci li nga xamante ne ñëpp ñoo ko bokk fii la ëpp jërëjëf alors pour présentation je pense que li nga wax loolu la Euh, moi, je suis euh, professeur euh, d'économie à l'université à Diop de Bambay. Mhm. donc, également, Mme Madame Aminata Touré également m'a nommé au niveau du Conseil économique et social, mhm. Conseil économique, social et environnemental, pour que me puisse ko ci liggéey bi président Macky Sall moko donc ci casquette yooyu lay yëngatu également sur le plan politique euh, man maa ngi le parti socialiste à Barni. donc je suis également membre du bureau politique du parti socialiste et Mangi ngi yëngatu ci Barni pour appeler le président Maxal. et puis je suis vraiment intéressé par tout ce qui est éducation. voilà ni koy euh, rafetlu également sur lay dellu la li nga xam Momo, moom moo di euh, cant ak ngërëm yi ndaxte euh, ba ñu da nga nangu ah donc bañu te gis nañu également donc sortie yi nga xam ne lu ci bëri tout ngi koy def ci ëttu tasukaay xibaar yi xam-xam bu xarale boo xam ne jaar na jaar na aajo woon na ci lépp lu jëm ci wàllum koom waaye su lay ni bu secrétaire permanent ci li nga xam ne di conseil économique social environnemental lu ko wundu alors poste boobu en fait madame Aminata Touré moko Amina Aminata Touré damay jéggalu ndax tal la ci dugal. <laughs> non Aminata Touré <laughs> Aminata tal moy sortante. waaw alors mom en fait euh, sama rôle ci conseil bi euh, c'est vrai que ñu bari duñ dañ ma koy laaj. alors c'est simple c'est-à-dire je suis chargé euh, de l'animation scientifique du conseil parce que ci bir conseil de observatoire économique mm. ci bir conseil économique et social alors ci bir observatoire Il y a un pool d'experts. Mm-hmm. On a des experts dans tous les domaines, euh, dans le domaine de l'environnement, de la santé, des médias. Euh, alors euh, c'est ce qu'on appelle le conseil scientifique conseil scientifique on man euh, coordonnateur d'accord donc man maay expert donc domaine ba nga le conseil bi daf a avis par une saisine présidentielle. Mm-hmm. Euh, travail préparatoire au niveau de l'observatoire hein, bien sûr j'ai réuni les experts. Mm-hmm. Euh, ñu des termes de référence nous euh, ñu étudier et après nous sourcer la présidente avec les conseillers. Mm-hmm. sur l'étendue des problématiques qui nous avons ñu traiter je donne un exemple Nous mm-hmm. avons par exemple évaluer l'acte 3 de la décentralisation comme bi le ministre Omar Gueye mm-hmm. Mais mais y a tout un travail préparatoire qui nous a été man coordonné sur l'étude euh, de nan lañ koy et ak euh, bu avons euh, lan préoccupation majeure nous mm-hmm. ñu Nous ñu ba bi mu ñëwee gis nga ko on ay échangé yu yu important ak moom ba tax lu bari njariñ la la nga xamante ne bind nañ ko ci avis bi euh, jëlale que fin d'année bi président c'est dire que à votre instance euh, li nga xam ne moom moo euh, donc yii di gouvernement bu Sénégal au fur et à mesure kenn ku nekk day nous présenter, au comme ni ñu koy au niveau de l'Assemblée nationale waaw lolo, lolo c'est le président de la République moo koy décidé par une saisine moom mooy bind wax ne et dans la loi euh, euh, euh, portant création du conseil économique social environnemental obligation pour membres du gouvernement d'union répondre à l'invitation du conseil économique social environnemental sur des questions précises mhm. par exemple là on est en session du 29 octobre le 13 décembre hier le ministre on Yarnafo jaar Fatou fa euh, on a le 19 mai passé mais y a eu des soucis dañ ko reporté euh, et après dinañ recevoir Abdou Karim Fofana mhm. Abdou Karim Fofana dina ñëw sur des questions d'hygiène et mhm. de sécurité publique donc a eu ci débattre nous en interne on est en train de travailler de faire le travail en interne pour que vous ayez fekk que mat débat bi meuna nek débat buñu buñu buñu sop recommandations recommandation également ci ciy ci échange yi ñu am ak ministre département ministériel yi mu nek ay recommandation nga madame Aminata Touré da koy jébbal président de la République mom mu xol nan la koy traduire en acte réel pour le gouvernement ce qui veut dire que donc la la fouille avec les services déconcentrés de l'État ak li nga xamné également mom moo di euh, véritablement ces démembrements même au sein donc des des collectivités loolu lepp ngeen fait éplucher euh, donc la les problématiques soumettre ko absolument alors dinañ dellu si

Euh, dem euh, wët euh, falewaat pour ki nga xamné ne moom di ap ab maire waaye fofu tam jàllul de Souleymane lu xewoon non lolu en fait Moussa c'est derrière nous moi je pense que épisode yi am 2014 yëpp épisode yu jeex la parce que xam nga la mara parce que actuellement ni maire yi nga xamante ne ñoom. ndax dañu yëkkati laaj bi ree da la dugg. non li tax mu ree ma parce que daf may rappeler ay souvenir et que actuellement ni wote bañu ñu wote 2014 carte yi jeex na c'est-à-dire que maire u Sénégal ces mandat yi juin bi passé ñoom ñëpp autant qu'ils sont les mandats jéem nañu président Macky Sall moo jël prorogé ko ba euh, jëmmi jamono on parle de mars 2021, mais euh, mais actuellement ni ni ni bu ñu ron bu ñu ron xeyma li taxone population yi waté jéem lool motax tax ma doon sourire sank parce que actuellement ni du seen légitimité moo tax ñu yore maire yi. Mm. voilà ci li tax ñëwoon euh, su lay doon euh, yëkkati laaj bi ndaxte da nga amoon euh, posture bu am solo ci li nga xam ne moom moo di taxawaay bi ci Bargny ku ne gis na circonstances yi nga xam ne moom la ñu fa fa fa nemmeeku waaye gestion bi yaa wax wax nga léegi nee na mandat bi jeex na gestion bi boobak léegi nii tey jii nii soo doon natt gaa ñi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar bul fàtte moom mooy moo lalu ca te yéen a ngi ca biir seen yorin. Euh, non mairie mairie bu Bargny man duma ci sori. parce que xam nga la ma wax. Hmm. parce que wa Bargny ci bopam bo len laajee bo jëndee Bargny ngay laaj yow Bargny nga dëkk. Hmm. bo jëndee Bargny ngay laaj waa euh dans l'unanimité ñoom ñep dañu xal gestion mairie bi ben exemple la ci joxé te je te fais une confidence hmm. li tax ma accepter cette invitation pour ñëw fii c'est d'autant plus pour parler dama bëgg wax ci walu jangu xalé yi. la politique éducative à Bargny.

bàyyi nañu fa ay akki yu am am solo. Mhm. ya nga xamantene amul amoon na euh, te ba tey jii acquis yooyu sax defena mo moo ba léegi walu éducation. akki yooyu ci suñ ko don xayma peut-être moy le bâti n'est-ce pas. wa bien mais bien sûr. voilà donc euh, au-delà du bâti. Mhm. au-delà du bâti mais le le maire Marjouf Diouf. Mhm. dafa daan joxe euh, dafa daan joxe ay dotations aux écoles. le maire Marjouf Diouf dafa daan également joxe ay fournitures.

d'ici il y a y a y a deux mois joxe nañ sen seen funu. soo ne crédible lu ñu mëna dégg foofu. non mère crédible day wone né tay ji ni sa Abou Seck mi jité sa la n'est-ce pas. non Abou Seck du sama xarit. déedéet way tam souleyman su Abou lu tax du sa non Abou Seck du sama xarit. vous vous êtes fréquenté yéen a nekkandoo à l'université du moins donc yéen a nekkandoon aux universités françaises ak jamono ba ngeen di jaar. xarit mooy ki nga xamantene da ngay partager ak mom Abou Seck sama am di la sama mm-hmm. mbokk la. Mm-hmm. je vais dire dinañu daje bu ñu dajee dinañu nuyunte saafante euh, euh, je veux dire foofu la suñu relation yem d'accord d'accord xarit mooy ki nga xamante ne da ngeen di partager seen intimité xam nga xam nga xam nga li may wax oui bien sûr mooy xarit mhm. mais am di jàmm moom nekk na ko ndax man ak moom jàmm la jeex d'accord donc euh, est-ce que c'est pas parti du code de ci euh, jamono ba euh, pour Bolo Nekat après wouta non non non non non c'était pas ça mais justement pour être crédible moi lan est-ce que ça veut dire que dans la gestion de la chose éducative malheureusement tout n'a pas été au rôle qu'on espérait crédibilité xam nga la lay signifier mooy lan respecter D'accord. C'est pas le cas. Dites qu'on respecte ses engagements, tu es quelqu'un de crédible. Mm -hmm. Qu'on respecte ses engagements, tu n'es pas crédible. D'accord. Engagement, mais moi, parmi fin que fait qu'on, d'un qu'on en yobu, fa nga xamantene mo gëna ñong mhm. tay de nous régresser d'accord je donne un exemple précis mhm. bo jëlé école euh, école mbot mbot -hmm. de mairie de Fignou, ñew jël cinq classes na daf koy rénover mhm. ñu daanel classe yi na dañ koy tabaxaat etc.

ak après midi def def euh, quantum horaire bi nga xamante ne mooy quantum horaire normal même bu nekkee loolu am na sax quantum horaire mooy daanaam li nga xayma ci ay waxtu. ci ay waxtu ñu war ko ci année scolaire voilà même bu defee loolu hmm. parents yi dañuy wuti répétiteur ci biir kër gi pour gën ko. mu nekkaat beneen chargé voilà mu nekkaat beneen chargé. waxuma laa nag xale ba nga xamante ne quantum horaire bi mooy charge bi nga xamante ne war nañ ko def ci at mi hmm. moitié bi la ñuy def. ce qui veut dire que xalé dañuy hypothéquer sen avenir lolu liko andi moy ñak taxaway te li am euh, mode deux muy ay classe ñu fa supprimer xalé yaa ngi def double flux à Bargny amu fa mm-hmm. am aussi Mervi école Mervi xalé yi également même chose toilette sax amu fa li wax ni man nga ko vérifier bien sûr demal nga vérifier ndax école ndax ya fa nekkoon muñ bañ fa mujjee def reportage c'était des toilettes vraiment non fonctionnelles loolu moom on l'a remarqué sincèrement Amour toilettes. Mhm. également daaru deux mooy école bi nekk ci booru kër euh, sama papa Baye Pël mhm. boo traversé noonu ngay jubal mel ni kuy dem juma inter école boobu aussi même chose ay classe dañ ko fa fermé na dañ koy réfectionné ba léegi ubbiwuñu ko am aussi euh, école des filles mhm. école des filles fii ci biir Bargny même chose moo am aussi Sembou Kipp barrage même chose également donc am si Castor donc lui-même yow mën nga dem. Mhm. nga def ci reportage. Ah, parce que nous, on a été à euh, même à à école de Fils. c'est vrai que derrière il y avait Waregana Seck qui avait donc initié moom ak euh, la dame 6 euh, bi donc Fofu benn. Aminta ñoom ñu defoon donc un partenariat donc avec ak l'institution municipale andi woon sax réfection defaraat mur yi et cetera nga dem également si dans le paquet parce que ñoom dañ koy ñu ngi koy bàkkoo euh, ils ont mis beaucoup d'argent disent-ils la dernière fois donc fii rek la invité woon Abdou Aziz Sy Ndiaye euh, moo yor wàllu euh, jeunesse ak sport doon wax donc les réalisations d'ailleurs yi nga xam ne def nañu ko ci walou li nga xam ne di école yooyu mais su ma la déggee ngay dingat c'est comme si également donc ñom li ñu def lepp da nga ñëw rek balé ko pourtant ñom ils s'en félicitent li nga xam ne fa am jamono bi lan la ñu def salle de classe c'est vrai man remarqué naa ko au niveau de

dafa djegi dayo xalé yi dañuy nek plus de 90 euh, enfants ci la classe. alors ah, man j'ai entendu les enseignants se plaindre à à mon niveau. pour quoi ko franchement. mais mais tu penses que à ce niveau là éducation mën na yegg fi nga xamantene moy suñu yéne mënul mhm. nek buñu naxanté je veux dire loolu priorité la. enseignement njàngu xalé yi priorité la je pense que bu amé ay effort yi nga xamantene ne mairie bi daf ko wara def je je crois que. njàngu xale yi mooy nekk bi ci njëkk ndax d'ici quelques années. Mhm. xale yooyu ñooy màggatu ñoo war a yor barñi ñoo war a yore famille si ñoom la suñu yaakaar nekk bu fekkee ne actuellement dañ leen dañ leen dañ leen dañ leen handicapé ba tax ne euh, du ñu du ñu jàng convenablement te bu ñu jéemee seen possibilité de réussite day day day wàññeeku. il alors y' a y' a un fait qui qui est là moi, les lenteurs administratives euh, font que souvent pour nous décaisser d'âge d'ailleurs, même on amène un projet en cours les financements derrière nous suivent suivre comme nous le ko plus que la mairie boo c'est bi et ils reconnaissent que. comment non je veux dire comment faire aujourd'hui tout ce problème là au niveau de l'éducation tout est une question de volonté Moussa avons bul ma wax waxu lente tout est pas le cas du loolu une question de volonté gis nga euh, wax nga sànq sama bàjjen wara a ak aminte aminte 6 dem nañu fa euh, di andi ay solution par rapport ak l'école de filles man ni jël na ay partenaires français yóbbu leen ba ci biir Abou Seck pour que pour que ñu ñu ñu jàppale ah mais le problème mooy même man buma ma jogoon propre initiative. non non leen mujjee ci loolu. non fenn. c'est-à-dire lu tax. non loolu waxon nako fi non comprendre vraiment pour faire que nous avons nga andi ay partenaires envie d'appeler école défi def ko école pilote dans dans le cadre d'un projet pour autonomisation euh, école bi ci électricité xam nga def def quoi équipe éco sur sur wàllu numérique pour que les yi commencé ñu leen initier ci enseignement. c'est une très bonne idée Lolo. mais maintenant, pour moment de l'enfance, France damay gis sama sama xarit ma affaire yi foo leen ci toll ndax bi nga bi nga ñu ci maire bi vraiment ñu defal ko illustration ci bureau mag yëpp ñu ne ma ah ñun de moom foogoon nañ ne que bu ñu génnee foofu affaire yi dana jàpp mais ba léegi nit ñi mënu mënu da dafa bañ dafa bañ non enfin dafa bañ ça il faudra lui poser mhm. moom boo ko gisee mais lu mu leen tontu yéen non non daf na mu ngi ci à cent pour cent d'accord daf na mu ngi ci à cent pour cent mhm. man sama maa ngi àndoon ak euh, sama pap euh, sama tonton Kaasa Gueye. Mm-hmm, yal na ko yàlla yërëm. amiin moom laa jël ma ne ko tonton dama am ay xarit ya nga xamante ne ay partenaires lañu yu bëgg yokk yokk commune Bargny dañu bëgg ñu nga ànd ak man ndax man ku ma wóolu dama ko wóolu parce que bu may dem foofu. Mm-hmm. damay ànd ak nit ka nga xamante ne dama xam ne ko crédible la moo taxoon ma tànn Kaasa ñu dem mais ba ba loolu ba tey ba suba amul amul suite. donc lolo même yow bo décidé ne da ngay jël ay ay effort def ko ci walu njang mhm. dañ koy bañ d'accord je me souviens Drader est-ce que parce que dañuy ragal euh, derrière avec euh, un aspect politique de la récupération justement man DER derby c'est déjà vu lolo mais derby bi DER mhm. amé euh, euh, direction direction euh, bi direction à l'entrepreneuriat rapide oui bi mu amee dama jël ay experts ñi nga xam samay collègues lañu deuk Dakar ils étaient au nombre de huit Mané ne damay organiser séance Bargny de coaching pour les jeunes à nga ils sont porteurs de projets mhm. pour que ñu jàppale leen mooy ba ñu defoon ci école euh, lycée non manque de fonds. ok Manque de fonds, comme c'est différent ci bibliothèque municipale d'accord Waouh, waouh, je me souviens c'est vrai Bon, oui mais j'ai amené huit universitaires yu nga xam ñooñu seen temps ñu précieux mhm. ñu bàyyi Nous lépp ñëw un samedi matin mer ga ñu mer sax man xaw ma ko jox ñu saal ci ñu waaw waaw na fi même été waaw bi bañ pour que les yi ñu ñu parce que pour nous, loolu Non, ma wax ni c'est dangereux hein. non pour nous. bu mais, mais, dafa mais, mm-hmm. politique bu mais, mais, am et c'est pas le cas mais, non mais parce que aussi mais, mais, la mais, mais, mais mais, mais mais mais mais mais, mais, même mais, ci am mm-hmm. mais, politique mais mais, politique c'est mais, ak mais, yi nga mais, mais, mais, mais, absolument surtout nak ñu koy def gratuitement ou des universitaires étaient Dakar au nombre de 8 millions mhm. pour être un schéma directeur mhm. pour convaincre euh, euh, appuyer xale yi mhm. ci ni ñuy en fait ay projet ak nan lañ koy monter business plan ñu changer serrure donc gis nga effort gis nga motivation boobu mu am pour empêcher motivation boobu bu ko pour ne day école bari dina ko cest veut dire que yow mom dafa manqué volonté volonté euh, reproche bi une crédibilité deuxième euh, donc deuxième euh, deuxième qui bi moy li déjà mon voilà donc saisir ay opportunité ça devient lourd hein c'est-à-dire pour agir problème la wax public combien de fois le fa accident am ci guddi gi. Hmm. à l'intérieur Moussa vous route nationale les deux extrémités hmm. mais des La amul quoi, amul c'est une ville sale mais nee na euh, Promoville mu euh, donc dans le cadre d'un projet quelque 250 lampadaires yo xamné ne fas yéene nañu ko génnee. Ah, ah, produit état du Sénégal. oui. état du Sénégal. oui mais man la mairie. au profit au des collectivités locales aussi. non dama né wa la mairie. Hmm. mon par rapport à sa à sa à sa à politique moom. Hmm. communale. Hmm. mon la lay mon lolu la bëgg wax. d'accord ah. la mairie en tant que institution. certes état da ciy jàpp mais ñom seen politique. lolu

milliard. mais économie non mais attends le budget il est prévisionnel. ah mais mais aussi mën nañ ko qu'il ci loo xam ne. Ah, mais ah, mais d'accord mais moom. réalisable moom moom moom son taux de recouvrement du budget est ce que mos na weesu vingt cinq pour il est toujours non mais attends mais mais Moussa Moussa si rajo laay wax déglu ma la. Mhm. demal mairie ba. demal mairie ba nga par exemple sur un poste important. Walou Walou paiement des salaires des, des, des, fonctionnaires euh, locaux mhm. à gueule. Il est très souvent le cas. Dañuy ah, le plus... donne. 32 salariés. Ah. Mhm. ils sont maintenus n'est-ce pas bien sûr le nombre a doublé. Ah, recrutement ça se fait sur beaucoup mm-hmm. eh, de c'est-à-dire qu'il y a des chefs qui sont là-bas qui toute la journée devenir la te supporter dans ce temps éclairage public également il y a les activités. Euh, motrice mhm. comme la pêche. pêche bi ñëpp xam nañ pêche première activité économique au bari ñi. loolu tax ñoom ñoo indiqué. quai bi. Mhm. président Macky Sall moo ko fa def. bi mu koy def six quais de pêche la mhm. au niveau dans le débat national d'inciter à chaque fois les quai de Bani, ci acquisition yi nga xamante président Macky Sall def par rapport à Euh, euh wàllu napp mi. ba pare subventionné moteurs yi. moteur. Donc, subventionné subventionné aussi essence au gaal d'accord? D'accord. Euh, je crois que il va falloir mettre un mettre un tampon à après on va faire une petite pause On va faire de donc euh, quelques soucis euh, techniques Nous nous voilà donc une petite pause régler quelques détails après on revient Inch'Allah. allah notre invité, qui Souleymane Assou docteur Souleymane invité ci politique. biga kumba fal lepp lu ñuy wuti si Ibra Faal lépp a ngi ci ndigal fal lépp lu ñuy wuti si Ibra Faal lépp a ngi ci ndigal fal lépp lu ñuy wuti bay góor may sa biga na leen sooy nee na leen waxul nee na leen sooy nee na leen in a voilà donc euh, ñu dellu siwaat euh, ak euh, suñu gan nga xam ne moom moo di docteur Souleymane Astou Diagne tey moom la ñuy fas yéene waxtaanal ci seen émission jàkkaarloo politique bu sàpp jokkoo bi Assane Diouf ci xaral bi bu ci kanamee bu ñu tolloo ci njeexital lu des fukki simili ak juróom ma ngeen dugg bu boobaa 88 628 00 13 ñu ànd ci li nga xam ne moom moo di laaj yi alors docteur nga ne dëkk ba ñoom wax naa la léegi nii nañ am nañu ay lampadaire

est état central. Mhm. président Macky Sall. légitime et légitimité légitimé et aujourd'hui réalisé. Mhm. le président Macky Sall m'a décidé si ce qu'il six a de pêche lay mhm. y Il def bari ñu bokk ci. il y ci. yeneen ni dëkk également bokk donc loolu dañ ci félicité mais ce qu'il faut dire que par rapport à l'activité pêche bi. wax nga sànq ne promettroon na faamu xel commis la des financé day aménagé waaw day aménagé eh, def éclairage ah, foofu éclairage des hangar def hangar pour cadre cadre de travail bi gëna gëna gën amélioré hmm. mais lan lan la ci def donc problème crédibilité melax moy ñëw hmm. xam nga crédibilité quelqu'un qui mais yéene baa ngi fi tam Souleymane ah, mais mandat bi jëna oui presque wa c'est-à-dire que aujourd'hui hmm. bu fekkoon na nekk dañu dañu un calendrier électoral bi c'est au mois de juin 2019 bi passé qu'il allait rendre le tablier les élections municipales da am par bari ñu ay watewaat. Mm. soit mom dañ koy reconduire. Mm. wala ñu fal keneen. Mm. d' donc ce qui veut dire que action yi mu circonscrire ci mandat bi. lolu moy wone ne crédible. ndax tey jii tey jii il est en sursis. parce que mais mais ils sont en sursis. tout à fait parce que président mo mo na légui day prolonger mandat bi. mais buñu organiser une élection yi au mois de juin. li muy wax ne kañ la koy def xana ñoom wax ñam la koy def. <laughs> donc lolu boo jaaxal ñëpp état la mais li ma bëggoon wax. ci activité xam nga on parle de la pêche.

boo bëggee man nga ja jënaat image nga xol ko. mais non non attends. lan la wax en off bi mu fa demee. Ah. Euh, si reportage TV5 bi. Hmm. bu ñu paré ñu xolat ko. boo hmm, bëggee hmm. il a dit que activité yoyu ñu dañuy nax seen bop du façon pêche ak fii réew mi toll yooyu mom légui ce sera bientôt derrière nous loolu la wax. ce qui veut dire que kooku intérieurement gëmul gëmul pêche. mën na taxaw ni nak gaay taxaw amul leneen lu mu mën wax loolu dina leen jappalé dina nangam ak nangam mais journaliste bi jour bobu

Ta pêche mooy première activité économique. mais derrière vous devez également solliciter euh, donc euh, du ministre Omar Gueye du temps donc de la pêche après euh, maître maître le président Macky Sall donc finalement accepté jël un de ces six quais de pêche installé à Barnier. C'est vrai que l'usine de poisson c'est un paradoxe usine de <laughs> poisson bi Mangabir, Sangalkam quai de pêche il y a aussi oubiboul donc c'est vrai ñoom ñoo mais mais Moussa quai de pêche moo tout lolo. CDPS bi ko président Macky Sall décidé je crois que c'était décembre 2013. d'accord Bon loolu amagul bon loolu amagul décembre 2013 ou 2014 le président Macky Sall décidé de construire ci année bii di budget Sénégal bi di ñëw pêche mu boole ci Bargny loolu donc moo jiitu. Mm. donc pour dire que activité économique yi nga xamante ne mooy pêche. Mm. dañu am tey jafe à mm. action de la mairie bu matérialiser soutien au mairie par rapport à la pêche te moom nekkoon na fi directeur cabinet mu néew ministre Omar ministre de la pêche mm. en tant que directeur cabinet du ministre de la pêche mais là là defar waa pêcheur waa Bargny man bëgg naa ko xam mais mais am am jamono donc ñom andi nañu euh, donc euh, yi nga xam mom modi ay ay partenaires yo xam dañu leen sax fekk ñom femmes ci gox bi surtout ba muy soga ñew fekk leen euh, évaluer donc le niveau là également dama koy wat c'est un projet on avait donc <laughs> soumis voilà. mais Moussa Moussa Moussa hmm. Moussa yow nag tu as un problème également. Hmm. yow yow ngi laa xal personnel. ah de quelle nature. parce que am nga ban problème hmm. c'est-à-dire que yow. tu dis toujours amone nañu. amone nañu amoon nañu mais ci lépp.

mais action de nous mesurer aujourd'hui l'action sur la pêche. on aussi actuellement de la décentralisation nous euh, jox la la possibilité d'agir et d'être autonome alors que derrière les finances sont toujours capitalisées par l'État au niveau donc du trésor public mais loolu docteur mais ça pose problème parce que loolu aussi euh, c'est une fois de plus donc euh, euh, joxe joxe bopp rocc ci làmmiñ le état bi di def mon sonal collectivité locale la dernière fois on a vu ton ami Papa Daouda avec quelqu'un qui a xam dit di véritablement seen ñaa génn di di a que xaalis bi nga à leur niveau amener nañ ko pour faire des réalisations waaw c'était sur la la réforme de de ce qu'on appelle la contribution économique voilà justement C'est loolu la donc dafa am ay conseils yi nga xamante ne état moo ko war a def mu ñoom ñu tardé ko jot loolu rek la mais rien n'empêche au maire mu jël ay initiatives parce que aujourd'hui tey pour yore dëkk intelligence moo ko yore pour yore dëkk pexe

état bi mooy ñëw non dama ne moom si selon ses non dama ne dama ne Moussa Moussa Moussa buntu buntu hmm. bu fekkee conseil économique social mais loolu yéen ñi nga xam ne yéen a jege nguur gi hmm. buntu état hmm. loolu lu ci yoonu nguur nekk loolu dañuy xaar aucune volonté donc aucune volonté artère route bi xool waaw bi hmm. jëm bari yéeg hmm. kenn désensablé c'est-à-dire que da ngay xam territoire bi Ken gouverné et la situation d'ailleurs de Fodem, dem ba déteindre ci euh, le milliard le milliard je pense 400 hein. millions su ma juumul bi waa Eiffage waroon a dugal ci euh, donc le pont de bargny et que finalement en l'état malgré le démarrage le projet projet LSC waaw mais moi, moi, en 2019 mu pare ah. waaw mais mais 2016 le 2 juin 2016 la commencé. 16 19 donc voilà. voilà ba léegi ne pareegul. te mm, mm. ñu ne def nañ ci 480 millions. Mm. mais li gën a yéeme mooy ñaar la bu njëkk bi mooy population yi dëkk à côté. problème bi leen po boobu andil yow mënuloo ko imaginer Moussa ak ndox mu salte mi nekk foofu mm. yooyu seeni fosse yi commencé di fees mm. mais li fa am kenn mënu ko c'est indescriptible la dernière euh, euh, bi ndox mu bëri bi amee dañoo dem ba finalement donc dañ duggoon si inondation tout comme li nga xam ne moom moo di euh, front de mer bi waaw sëkk bi sëkk bi

dañ nettoyer parce que foofu loolu aussi responsabilité population yi am na foofu mais waa mais responsabilité euh, publique hmm. mais ça leur permis may leen fa terrain ci gannaaw non non non Tamsir Mbengue technosol kenn mënu ko xeeb parce que moom dama ne non plan national international. waxuma ne non Tamsir Mbengue. dama ne mais pour xam nga étude géométrique. ils ont fait donc euh, un drainage def Ben sillon alors derrière également ils ont fait donc Ben genre euh, crevasse Gasco, ah, donc amba Normi, pour que vous coupez nous menons juste à quelques pas donc des de de ou euh, de faire réceptionner euh, donc les euh, décès solides les décès liquides pour que nous famille mais malheureusement la population nous ñooy jël solides un petit ko ah, mais parce que n'y a aucune indication c'est-à-dire que d'accord une une ville propre nous ne woon dañu defar bancs publics de ay même malheureusement là également. mais non waxoon nañu né euh, dañuy euh, dimbale population yi nga xamné rivé en fait am problème euh, donc ak tefes gi géej ni muy avancé dañ leen waroon déloger yóbbu leen Bargneville donc verte Bargneville verte effectivement <laughs> voilà donc on s'y perd tellement de ya de nangam nangam mais là également c'est un souci c'est vrai que ñom ils ont beaucoup de volonté mais derrière voilà les politiques n'arrivent toujours pas donc à à échéance

boole da ngay euh, defar ay logement pour la population da nga leen nax ku mënul entretenir le cadre de vie à l'intérieur de Bargny au centre-ville de Bargny mairie bi nga nek sax toilette ya fa nekk boo amee gan dougal ko fa mu xeeb la je veux dire kooku bu ne day defar loolu dañuy naxaate te en plus souf amatul Bargny fan la ñu yobu ñoy souf amatul Bargny moy lan c'est-à-dire que aujourd'hui hmm. y a un mètre carré ba nga xamante ne suuf bu waa Bargny am parce que Bargny amee ñoom à l'entame andi woon nañu fii donc euh, euh, dagg quelque part euh, au niveau donc de de Fincorne. mais foofu foofu ay jaayee ko ñoo a a deux lotissement yu bu ñu defoon Fincorne. oui amoon ay famille jaay ba pare. Hmm. mu desoon la nga xamante ne mairie moo ko moo ko moom. Hmm. dañ ko waroon redresser.

amul tay benn infrastructure bu taxaw Bargny bu jëriñ Bargnois ñu ne lii le maire de Bargny moo ko fi def. Euh, euh, bon boo jëlee euh, au niveau donc de de de de la de comment on appelle ça fi mu fi mu tuddee Ndiou Ndiouga Dieng am nañu fa. à la maison de, de l'innovation et de l'entreprise d'ailleurs nous avons presque mais, non attends maison, maison de l'innovation mhm. de l'entreprise je salue l'idée mhm. mais c'est juste venir mais euh, le bâtiment direct def fa benn placard. Ah. d'accord dugal ci biir service. oui foofu la mais du infrastructure bu ñu créé. d'accord mais dama ne lu ñu créé. lu taxaw la nga xamante ne dafa jënd ci suuf sax. excepté peut-être le quai de pêche. le quai de pêche Macky Sall moo ko mhm. amul benn infrastructure.

ñu ville euh, ville verte euh, yow nga ne ñoom jaay nañu affaire yi euh, mais. non dama ne ñoom ñaari ñaari lotissement yi def nañ ko. Mm-hmm. moo tax dama la wax ne. bari ñi amatul benn mètre carré suuf. amul amatu fa. te population yu jeunes yi bu ñu bëggee tabax. amuñu ko comment ils vont faire. amuñu ko li fa nekk yëpp lu ci bari ay famille ñoo ko moom. mais périmètre communal bi dernier lotissement bi mu def mooy suñu titre foncier bi nga xamante ne sukk si moo ko joxoon mooy fii andi problème d'ailleurs. oui oui oui tu sais que tu bi. Mm. moom il

février 2018 dañu toog ñu def lotissement mu ne da koy jaay c'est je crois c'était 187 parcelles parce que man information yi mu ci am bariwul mais il me semble c'était que 187 parcelles ñu ne ku dëkk bari ñu 1 million 200 ku dëkkul bari ñu 3 millions jaay nañu ko ñi ci ëpp ay waa Dakar ñoo ko jënd waa bari ñu jeune su bari yëguñu ko sax ba ciy am.

gars yi nañu. à moins que peut-être état bi renoncer à la centrale à charbon nga xamné ces derniers temps. voilà waaw centrale souffre-douleur la. waaw centrale bi actuellement il paraît que dañoo am ay jafé jafe ah bon moi je l'ai constaté comme tous les Bargnois mais lolu Euh, c'est pas actuellement envisageable parce que xamuloo nan lay nan lay nan lay nan lay mujjee. est-ce que d'autant plus que l'espace a été vendu déjà. waaw léegi wa min lan fan lañ jëm sama mbokku Ndiaga Samb yi euh xanaa ñu priser loxo suñu papa Mar Diouf mu séddee donc les euh, ces parcelles privées nga xam ne ko ci gannaaw xulub. mais fof Mar Diouf moo ko moom. titre foncier là privé privé pri prisé loxoom rek. non man man man le connaissant le connaissant le connaissant Mar amul problème yooyu. le séddee. Mar Diouf mm. xam. Mm. amul problème yoy mm. Mar peut donner ses terres bu faites la la récession peut se faire. voilà le gars il sait est plus à réputation. surtout faut pour fa nek ñëpp ay mbokkam lañ mm-hmm, mm-hmm. donc lolu pour man du. à moins que aussi mu defal à l'institution municipale xaw ndax c'est est possible un bail de quatre vingt dix pourquoi pas. non

mais da ngay dem ci justice. mais fii maa ko moom sama kayit a ngi nii. te justice kayit la am. te nag titre foncier du bàyyi acte de propriété la d' accord bàyyi dañ ñu mais titre foncier acte de propriété alors euh, l'espace pris également par euh, l'espace pris euh, donc par ñi port minéralier vraquier bu Sendou espace beau, tey également est-ce que état aussi une concession pour que les jëm ci ginnaaw foofu jëm Balibor, Tolo, ak ak fi nga le pôle plus Diamniadio mais ñu population yu bari ñu jox leen Souleymane. moi je moi je pense que euh, fi ñu war texte mën a teg suñu pour réduire surface bu pour bi jël pôle je crois li mu jël bari dafa bari trop. trop ils ont pris 1600 six hectares. trop dafa bëri Souleymane. dafa bëri te ça c' est du Sénégal c'est vous. waaw mais l'état du Sénégal mais c'est le même. encore le même. central même man ci ñi compte bari c'est la bokk. je suis parti. oui à

tudd suuf concret laa xamante ne Moussa Pouye la téye u làmbax u daj u ne lii la ba nekkulee loolu ay loolu mais

de euh, <laughs> bah, Alors, seulement, nous un peu, euh, parlant d'actualité, on a assez parlé de Barni, Niti euh, donc 11 minutes. Donc, d'ailleurs, moi je vous demande juste peut-être, qu'est-ce que tu proposes pour l'éducation Alors, l'éducation, c'est 19 minutes chaque année, il y a une dotation. Waouh, moi chaque année, dans mes diaplés, dans mes organiser déjà une cérémonie de remise de prix d'excellence, c'est-à-dire, classe Boulek Barni, qu'est-ce que fait le pays, maintenant le prix pour que je suis un peu de je suis un solo

une petite ville dinañ am deux ba trois ni loolu wane na que barab bi am na du bu fa nekk socle boobu nag défilé pour nit ñi téye ko ñu koy jóg mu accès ressource humaine waaw mais ressource humaine ci élémentaire les commencer. bien sûr xam nga yow am na ñi nga bu élémentaire boo ko rek hmm. quasiment da ngay raté ni ci des yëpp hmm. moo tax mu gëm na ni que construction classe yooyu dotation yooyu euh, euh, essayer comprendre soutenir également xale ci ay fourniture loolu lu essentiel la pour man ci walu jang da tay jii mais dafa ruslu sax mais même la commune de Sène bi joxe moom vocation yow gis nga ko le maire Daouda daw de coow daw yi joxe scolaire wu commune mm, mm, mm. ba sax euh, poste police va fa nekk mu leen ay ay mais c'est vrai que aussi son euh, partenaire quelque part peut-être les difficultés Nous je sais pas non peut-être le font avec du retard

waaw ah, donc sur le plan actualité nous ah, disons ah, donc euh, économie comme naa ne yow euh, kàngam nga ci euh, ku ci donc ak ay ay faux un ban cette posture d'un député donc de la République voilà quelqu'un qui est censé défendre donc ñi les populations sénégalaises war leen représenter dans une institution aussi importante

Il di def ay à de 32 milliards. surtout ay ay ay étrangers surtout ay devises. Hmm. dollars. et puis Il billets baaxul ci économie c'est parce économie, déjà. parce que que trente deux milliards il jii si su au moins une partie est en circulation comme monnaie fiduciaire ça pose problème. ça pose problème Il y a effet lay am. Hmm. économie hmm. a confiance acteurs l'acteur, c'est vrai.

député bu ñuy bu ñuy mu yor milliards Mais non si c'est vrai c'est que suñu suñu image yu à l'extérieur mais comment se fait-il que quelqu'un comme qui euh, euh, nga pas ne moom moo di Cissé Lo a une sortie comme ça si musclé euh, wax ah, donc les pontes véritablement donc de de la République avec également donc quelques VIP lu ci bëri ci ay deal ñu ngi ñu ngi koy amee ci euh, on a l'impression que voilà, euh, c'est la République qui, qui, est en souffrance. Bon, euh, si que c'est-à-dire que justice il faut montrer euh, sévérité par rapport à un acte criminel, dont phobie et drogue. Ça, c'est l'économie du crime. Dès que nous avons day gën de dellu gannaaw du fa am jàmm du fa am te day mm-hmm. parce que l'investissement tax mooy investissement yi nga xamante nous des a sur le dëkk une partie de war à l'étranger D'accord. investissement si s'il y a la criminalité si on la billets criminalité qui drogue nit devons nous jël avoir des ko de le est-ce que est-ce que entreprise simplement le Sénégal, il y a beaucoup de création d'entreprises et industries d'ailleurs qui viennent de l'étranger nous installent où est-ce que vous ne pensez pas que c'est des moyens de blanchiment d'argent Non, ce n'est pas des moyens de blanchiment d'argent. Euh, dans la mesure où nous euh, voilà création de richesse millions en 6 années passées, euh, de, faire, de renforcer, de, de, renforcer la euh, conviction internationale que le Sénégal est un pays euh, économiquement euh, euh, attractif. Donc, on assiste actuellement à une, une, installation de grandes industries dans notre pays parce qu'il y a la création de la richesse. Mm-hmm. Et l'environnement des affaires également est, est, est un des meilleurs. Business Business mm-hmm. il y a moins de un mois. On a gagné quasiment 18 places sur le Business. Business de mesurer en fait l'attractivité la compétitivité d'un territoire Tu réformes au baril le nga Sénégal waroon na sur par exemple la mise en place de de de tribunaux du commerce mm-hmm. pour euh, pour départager en fait euh, euh, des conflits commerciaux ou des conflits d'investissement mm-hmm. Sénégal am na ci ay a Diego. am na xam nga boo également sur l'accès aux foncier également président Macky Sall a a ay décret d'application yu bëri nga xamante ne léegi Il ngi commencé di appliquer mm-hmm. donc tu vois wàllu dans le euh, moo tax Sénégal nek na dëkk ba nga xamante ne investir fi lu am am lu ñu lay rapporter lu am am solo la ci walu koom. les finances au vert le lampion. waaw quasiment wax nañu la la dernière fois di amelaate ay xaalis. non Sénégal Sénélec amul xaalis tout ça. non attends c'est que euh, il faut ngeen comprendre aspect yi. Hmm. Sénégal état du Sénégal moko ko oui Sénégal dafa am un code de conduite Sénégal c'est une société qui n'a pas de déficit. Mm. déficit. Alors, maintenant, devant am et le yi c'est-à-dire que pour expliquer que le Sénégal lambda, nous pas maîtriser trop. Mais on va y aller. Vous dites que nous fluctuation du dollar. Le dollar, c'est le pétrole sur le marché international. Le hmm. dollar est fluctué. Hmm. Des fois, vous n'avez que 500, dollars, 500 francs CFA, des fois, vous n'avez que 600, des fois aussi, moitié. Bon, lolo, vous avez un impact de facture au Sénélec. Parce que la facture de la Sénélec, est libérée en dollars. Hmm. Donc, lolo, donc, on a un mécanisme de couverture de la maintenance. Si, de fois, une évolution vers la hausse, État du Sénégal, nous avons assuré couverture par des cancers. y Bimoui, plus du bel du pétrole. Mm. Plus du, il y a un an, c'était vers 50 dollars, 45 même. Mais actuellement, plus du plus de 70 dollars. Vous voulez que des 69 quoi, ah. sur euh, des influx. Des feuilles au Que Bouyoko, c'est le monnaie approvisionné en hydrocarbures sur le marché parce que plus de feuilles. Sa principale ressource, oui. Voilà, mm. c'est le mm. ndox le coup. d' accord mm. donc loolu moo tax état du Sénégal day day ñëw à la rescousse

de loi de finances rectificative Les problèmes, mines nous ñuy commencé solutionné voilà et qui bu euh, pour fermer cette euh, cette parenthèse euh, sur le plan national euh, ñu mën un Sénégal vous êtes économiste qui a du du gaz et du pétrole à l'avenir le pays peut faire combien de bons qualitatifs Waouh, certains disent que d'ici quelques années le PIB même le yokk de de la moitié sauf si l'argent est laissé dans les caisses de l'État bañ ko jox ay à ak ñeneen non enfin je sais pas est-ce que dañ koy jox ma sàmm mais li de bi pétrole bi Sénégal d'accord euh, d'ici 2023, dès vingt trois dinañ commencer première exploitation yi y a un effet positif sur l'économie sénégale. D'accord. Déjà, la facture pétrolière est éloignée. Dès que nous avons un moment où nous Pouy, j'ai fait la confiance, la facture pétrolière de l'État du Sénégal, euh, franc, c'est bien un moment. Non, loolu c'est énorme tey jii nii 6 pour cent yi ñu yokk ci électricité bi fu muy alors. non 6 de yi yokkuñu ko pour ñëpp. ça aussi c'est quelque chose à éclaircir. Sénélec mu ngi am 1 million de clients. d'accord Sénélec mesure bi mu jël day ajuster prix bi à partir du 1er décembre concerné wul 500 000 clients am na 500 000 clients ñi sont les ménages. waaw ñu nekk ci branche tranche bi bu njëkk bi. ñooñu concerné wu D'accord Nous, c'est une facture de, changer. D'accord. Euh, ajustement, de nous concerner. Euh, euh, deuxième transmis, d'accord À -hmm. industriel. Deuxième transmis, nous, c'est une facture d'un ajustement de 6%. Euh,

bi yoon day ñëwaat jamono bobu ya ngi won FSDBJ ya yaa yoron jeunesse bi euh, représenté leen sur le plan local et départemental également nga bokkoon ci euh, sen instance yi da ngay doon candidat à la prochaine euh, locale de Bargny. waaw sama ambition en tout cas à Bargny mes ambitions sont restées intactes. da ngay doonaat candidat changé wul sama. da ngay doonaat candidat. ah dégg loolu wax sama ambition. Bargny non mais en fait wax ko ak junj ko du ben non ma ah. sama ambition Bargny changé wul. Hmm. temps buñu taxawé ñu né

Mais moi, j'ai ma ambition changer, Moi, mon plan, mon ambition changer. D'accord. Quand vous convoquez Avenir Bagné, vous euh, savez que ma ambition changer. La ma défaut en 2014, c'est de faire le Une note entre 10 et 20 pour... Euh, en fait, 0 et 20 pour, euh, pour euh, la, gestion municipale. Vous savez que Benoît Bokeyakar, mais derrière, le maire Abou Sek, il a une note rapidement entre 0 et 10, 0 et 20. Moi, Aboussek, je ne sais pas si Aboussek est étudiant. Souleymane Assou mo moo suñu gam ci seen émission jàkkaarloo politique looy tàggatoo Souleymane bala ñu dem. waaw xanaa rek di leen remercier di wax ne nag fi gëjoon naa fi. waaw du loolu gëjoon naa fi moo tax. depuis daaw Ndeye Coumba. Euh, waaw temps Ndeye Coumba moo fi mujjee recevoir. euh naa contenté vraiment ndax rajo Jokkoo euh, rajo bu ma bu ma naw la ndax euh, moy radio département bi donc ñun ci lañ bokk. Hmm. motax tax am toujours mbégte ñëw fi débattre euh et sori. souvent également du national. on <laughs> parle euh, plus de local. waaw man man ci national laay ëpp lu may wax. waaw c' est rare mais ñëw di wax. local euh, sur des problèmes locaux. Mm. mais Jokko daal tribune bu ma rafetlu la. je suis un partenaire vraiment content de vous. voilà di ko remercier moom docteur Souleymane Astou Diagne tey moo nekkoon seen émission semaine autant pour moi ja euh, gan ci seen émission jàkkaarloo politique Moussa Pouy moo nekkoon ci waxukaay bi Assane Diour féete woon ci xarala gi pour la réalisation euh, di leen gërëm di leen sant ci euh, dikk daje bi nga xam ne jot ngeen ko teewlu ci biir émission dimanche lay doon ak beneen gan ba tey ci seen émission jàkkaarloo politique di leen ñaanal dimanche su jàmm yaise tu hi braval mai da babal sama mi braval afeyan